mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, mbokki Sénégal mbokki waa adduna bi yëpp diaspora bi ak fu waay mën a nekk góor jigéen mag ak ndaw euh, tey nag dañuy ñëw lenn ci këri diine yi li ñuy tax a jóg nag mooy xew-xew réew mi ak xew-xew yi nga xam ne mu ngi bëgg xew ci ñun nitu diine yi te wallahi suñu maam yi nga xam ne tey ñu ngi dund ci seen barke mbaa du ñu mere ndax li ñuy def nii mu ngi bëgg ëpp te askan wi sonn nañu lool te ku bëgg a jàppale Macky Sall mii yaa ngi lor sa askan ndax fukki at ak ñaar yi yépp ci ay jëf yu metti moom la ñuy gis suñu diggante ak moom ñu bari dañ naan dafa dëgër bopp boo aayee du ba nangam nangam wante senegal yi nag wax dëgg yàlla xamuñu woon ne bu ñu falee Macky Sall danañ agsi ci autour bii fan yii yëpp gis ngeen courant bi ni muy def man mii di wax ak yéen bokk ci kër diine yi suma kër am na appareil yu lakk ñu naan ma léegi boo amee assurance dara du ma ni kenn duma ci dem ndax duñ la fay dara mbir yi daan teg ñu ngi koy dégg coow li waxuma sax ay jaay daan teg waaye nit ñi léegi mënuñu faju te loolu Macky Sall xam na ko stade yi dëgg la kenn du ne stade duñ ko def ndax xale yi xale yaa gën a fo utal ko fu muy fooyee wàññiwul dara waaye nag farata ak sunna ñoom ñaar buñ taxawee farata ngay def te itam dafa am loo xam ne ci réew mi dañ ko war a bàyyi xel mooy ñi nga xam ne tey dañu wéradi muy mag ñi muy ñun ñii ak jigéen ñi nga xam ne tollu diggante ak ñëpp ñi nga xam ne sax wéradi da leen di bett suñu jaaxlee hôpital lañ mën a dem waaye fi ne daanaka hôpital yu baax amul ci réew mi. li tax may wax lii nag mooy ñun dañu ne ñun ñooy représenté diine ji ñoo fi nekkal yonent bi sallallahu alayhi wa ñoo fi nekkal kilifay diine yu baax yi muy maam Cheikh Ahmadou Bamba maam Cheikh Sida malik Malick maam Limaamu Laay ba maam Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass wala maam ak yeneen ñu baax yi Canaba yépp fàttewuñu kenn lim sëriñ si day xaw a jafe waaye buñ tuddee yëpp tudd nañu des ñëpp ndax ci këri yi ci lañ bokk di ci wax jaaxle bi nag mooy dañu dajee waxtaan. gis na léegi politiciens yaa ngi bëgg a yeb ak ñenn ñi dajale xaalis ñëw di ñuy tuumaal di yóbbu na 67 million di def na lii mel na ko fi mu ne ñu ngi ñuy bëgg a ñaawal ñu ngi ñuy bëgg a taqal te dafa mel ni ñu bëgg a taq nag ndax tey jii politiciens yi ku ci bëgg wor da ngay di ñëw ci ñun ne maa ngi dem tàggoo tàggoo am wor nga xam ne suuratu Baqara yàlla ngi ciy tere loolu yuqaadi'uuna Allaaha wa llaziina aamanuu wa maa yuqaadi'uuna illaa anfusahum war moom na boroom na ko wóor na ci boppam rek lay teesi te ma wamaa yasoroon na pertement bu rëy moo koy dikkal fasaaduhum nag yàlla dool leen fi xulóobihim seen xol yi maradun beneen feebar feebar boo xam ne yàlla day dolli feebar ci kaw walu ma saabun alimun la cay mujj mooy ay mbugal yu métti ci workat ànd ak nit ñi wax leen ne leen maa ngi jëm Ndakaaru ba yàgg nga wàññeeku jëm lax ànd ak nit ñi di xas Macky Sall di ko wax lu nekk kii na fi jóge yàq na réew mi ñëpp ànd ak yow jël seeni i carte d'identité bëtt taw bi wote nga xëy xëy benn bés jël seen wat boobu yëpp dem jaay ko def ko sa poche loolu nag jikko ju nu ñaawee ci àdduna amul kenn mësu ko gis boo diggee wor pire mooy façon wor yii tey nag ñun waxuñ ci ay domaine politique dañuy wax li nga xam ne moo bëgg yàq réew mi te mu ngi bëgg a yàq ci diina ji lu bari donte ko diina sax mënee su ko yàq ndax yàllaa ko sàmmal boppam waaye ñu ngi ciy def lu salt nag. ndax tey boroom réew booy wax ak moom lépp lu mu bëgg a def nga jàppale ko ci yaa ngi lor sa réew te nag wax dëgg yàlla duñ ay jaayil jàng nañu ne nañu xam nañ te ñii ñu wax ne ñoom lañuy roy ñoom de ñu daawuñu ko def daawuñ jege sax nguur waaye ñun fi mu ne ñu ngi jaxasoog buur di def ak buur lu ne ci àdduna te loolu nag war nañ koo seetaat ndax taalib yi kat luñ man tey bañ dañu ko xoolee ñoom la ñoo ñu dimbale ñoo ñuy baasal tànt yi bu màggal amee wala gàmmu am wala siyaare am ñoom ñooy def lépp bale dëkk bi bale fépp foo xam ne fu salte la ñenn ñi sax dañu futteeku di togg ñenn ñi rey gàtt yi ñenn ñi fees bu yëfee jeex it ñooy dajale waat ramasser at bagage yëpp waaye daanaka ngërmaande su ñëwee buur rek lañ koy jox wacc wacc taalibe yi fi mu nekk nii nag dimbaleetuñ taalibe yi te taalibe yi ku ñu tudd ñu jokkee ak yow tey jii boo waxee dara tudd sëriñ nga gis léegi yenn taalib yëpp jóg saagaw lañu ñu xas wala ñu wax kon ñoom def nañ seen njëkkal ñu ngi leen sant di leen gërëm waaye ñun ñii nag di kër yi diine yi ñun sëriñ si nag ñun wax dëgg yàlla fayuñ taalibe yi njukkal donte kon ñi nga xam ne tey ñoom ñun lañ yaakaar di ñu mbubboo di ñu defal ku ñu song ñu dal ci sa kaw di ñu défendre ba bëccëg ñu di leen di dikk aljana joo xam ne tey sallallahu alayhi wa moom ci boppam sax demagu fa moom mi nga xam ne tey mooy njiitu jullit yi moom sax demagul àddina mu ngi bar sàq te it yàlla atteegul bés penc ci àddina tukkeegul atteeguñ kenn ab dossier bu nekk tribunal nag kenn jugé gu ko kenn amagul noolie waaye ñun ñu ngi am benn njàmbaar di wax sax ci loolu ah tey it nag war nañoo xoolal suñ bopp baax a baax a baax baax suñ maam yi kat bu ñu ne dañ leen a donn donnuñu leen ca maandu ga donnuñu leen ca ngoor ga dañ leen a donn ci beneen façon ndax alquran sax tuddu na ko fa xalafa min bahdihim xalfun benn bi warisul kitaaba yaaxusoona arda haasal adna wa yaqooloona su yaxfaru lana wa in yaatihim ardun misloo yaaxusoohu waaw allam yoo wa darasoo maa fii wa daarul axiratu xayrun li si ne tëxoona afalaa tanqiloona xanaa amu xel bu xaay bi ñëwee rek ñu xuf te jëlal rek waaye am am yàlla am problème amul yàlla danañu ko jégal bu alal ñëwaatee ñu xufaat ak jël dafa mel ni ñun loolu ci lañ nekk waaye suñ maam yi kat nañ meloon nag lañ doon doon doonuñ ci dara ci li ma gis man mii suma bopp laay wax ci laay dalee. population bi kat ñu ñu bëgg a jéppi te ñoo tooñ nag ndax ñoom bu ñu defee seen góorgóorlu ba pare ñun ñu dugal ci suñu loxo yàq ko loolu nag baaxut bu yàggeekat par par parole yi dafa mel ni kon dañu ànd ak buur bi contre suñu xeet wala suñu peuple loolu nag. man dey ci sama bopp dalee gis naa ne ñu ngi ci loo xam ne baaxul te it yi passé na opposition bi gagné nañ ko loolu ñun ñëpp xam nañ ko xam nañ ko bu wér donte kon cour constitutionnel ñoo xam lu ñu mën a doxalee ak lu ñu mën a def waaye ñun duñ ay jaayil ay nit lañ ñu xàmmee jàng xam nañ ne opposition bi gagné na ko ñoom na ñu am seen ngor ne duñ def recours parce que xam nañ ne bu ñu defee recours du am njëriñ ndax la fa nekkoon rek moo fay nekkaat waaye bés dana ñëw de. képp koo xam ne tey nit a tax wala alal a tax nga wor sa nawle jaar ci kaw loo xam ne du dëgg def ko ci ni nga bëggee te xamoo sax sa bakkan bi kañ la dunda borom aadama yàggul de am na ñoo xam ne nag ni daaw ñu ngi foon di waxtaan dem ak dikk ni ngi ni ñu ngi leen suul ci bàmmeel te ñun it foofu lañ jëm kon nañu delloo suñu xel xam ne àdduna bii ab yendookaay la day jeex su ko defee ñun ñu ñëwoy nit ci diine yi ngelawaay su fekkee mënuñoo défendre xeet bi mënuñoo défendre askan wi itam nangoo nangooti buur jóg di ñëw di ñuy bubboo ñaari fa ñett fan salaamaaleykum ñaari fa ñett fan salaamaaleykum wala ay complot di am te xale yi population bi nag dofuñu de lépp lu ñu def ñun kilifa diine yi population bi xam nañ ko de donte kon dañuy wax sa gas ko suul ñoom dañ ko suul yi xam ne xew kon nag réew mi métti na nit ñi dundatuñu ñu ngi yelwaan ci mbedd yi nit ñi xiif nañu te gannaaw bu yàlla wooyee doxalinu bu ñaaw rek ko waral ndax alal ji ñu ngi koy sàcc te kenn saytuwu ko dégg nga Euh, li ñi li ñi nga xam ne ñoom lañ jët seddu cëru ñuy gëstu muy OFNAC ak Cour des comptes liñ gëstu gis ay luubal ci ay nit def ko ak ñi nga xam ne dañu ay vingt cinq milliards denc ci xaalis seen kër ay milliards ak ñi nga xam ne léegi dañuy soppi xaalis yooyu yëpp mu ngi fi waaw ñooñu kenn du leen wax dara waaye ñenn ñi bu ñu waxee wala ñu wax ci ay internet ñu def euh, euh, kii naka lañ ko waxee autosis yi jàppale dugal ci kaso te ñii jalgati réew mi di yàq alal réew mi sàcc alal réew mi ñu ngi fekk kenn waxu leen dara ñun kilifaay diine nag loolu ñu ngi koy seetaan te dañoo waroon a jóg taxaw wax ñun ñëpp ñu dajee xoo Macky Sall wax ak moom ne ko lii nag na waaye duñ ko def nañu yërëm askan wi askan wi kat jox nañu suñ cër taalibe yi jox nañu cër ñun leen wan suñu maam yi rek ñoom it ñu gëm ñu ci loolu waaye nag ñu leen di lor te loraange nag baaxut yonent bi nee na laa dara wala diraara bu lore mais bu nangu ñu lor la kon mbokk yi ñu ngi leen di balu àq ñun lenn ci kilifaay diine yi dañoo toog rek xalaat xam ne daal fi mu nekk nii lii ñu gis muy am te maa ngi wax benn mbir nag en tant que kilifa diina Abdoulaye Wade mii ñenn ñi wax ci internet yeeg ci télévision yeeg Abdoulaye Wade demul fenn Abdoulaye Wade du wor Abdoulaye Wade xam ne ne wallu tey jii ak yewi dañoo àndoon ak seen kàddu te Abdoulaye Wade nag mag la yàlla na ko yàlla doole sax juróom fukki at encore dañ ko koy ko yàlla. ndax mag mu baax la waaye xam nañ ne du wor xam nañ ne fi mu nekk nii lii mu simb ak wàllu wu assé ah, simb ko ak yewi du ci génn ndax itam nag mag dana àgg foo xam ne dese yàlla kese doo def yan yi te alaaji Dudu Wade boo mu ñu dégg mu wax it nit ku baax la xam nañ ne ku am parole la wóor nañu wóor yàlla na ci suñu yaakaar yaakaari bopp seen xel dajul di génn ci la ñu waxoon duñ ko def ba ilaa yóbbu di ndax xam ne senegal leen ñor te wóor na leen ne tey jii bu demee ba population bi am yaakaar ñëpp sonn nit ñi dee comme ñu am yaakaar ci ne changement ngi ñëw kooku amul benn mbindeef bu gëm yàlla naan dangay ngay dellu gannaaw yàq déedéet loolu na ko nit teg ci suuf góor gi wàdd loolu xelem daju ko ndax taalibe maam borom Touba la taalibe maam alaaji Maalik la taalibe nit ñu baax ñëpp la man nag Sénégal su may wax ñëpp laay waxal faruma fenn jëwuma fenn ba pare ñaareel ba si des mooy bi ma nekkee kilifa ak diine bokk ci diine jiit ñëpp laa boole sama bopp ñëpp laa def comme man nañu tëral wax jooju yewi ak wàllu duñu mas a tàggoo ba ilaa yomi diini dañuy continuer seen xeex ba yàlla jox leen liñ bëgg noo ngi leen sant noo ngi leen di gërëm noo ngi leen wax asalaamaaleykum